asalaamaaleykum suñu mbokku internet Dakar midi yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar Sow Africa la macha allah di ñëw ak yéen suñu concept bu bees bi di waajtaaj tabaski ku ne xam na ni nag euh, tabaski dafa di loo xam ne dafa sell dafa di bis boo xam ne dafa màgg fa tubaar fakàlla ku ni tabaski nag ni tailleur ba ku ni tabaski ni jaaykatu tissu ba ku ni tabaski ni borom salon ba ku ni tabaski ni daral ba fa tubaarfakàlla macha allah ah, ku ne xam na ni nag ah, tabaski yi dañ koy waajal doon bis boo xam ne dafa tedd fa tubaarfakàlla macha allah dinañ dem sax ba ci jongoma ji nga xam ne moom dafa féroce nekk ci biir këram di waajal tabaskeem ni mu koy waajale ak njabootam ni mu koy waajale ak borom këram ni koy waajale ba ci entourage am fa macha allah dinañ seeti borom vaisselle yi ndax ku ne xam na ne nag ah, boo dressé sa taabul ba mu baax te ci vaisselle yu baax dañ lay gën a naw ku ne xam na ni nag boo demee ca daral ba xool fa nag kuy bu am maanaa fa tubaar fakal la yéen góor ñii daal ko diri sa laaj sa sa soxna ah xool ba day bég fa tubaar fakal la macha allah. sama mbokku internautes yi ana parate fii lay xewee ci dakaar Midi ak Maguette Ndiaye.